man maa ngi tudd Ndeye Coumba Coulibaly ñuy wax ndey Ndeye Coumba ma madame Mbaye ma nekk euh, artiste comédienne ci troupe Soleil Levant bu Thiès euh, ba pare tamit euh, ma nekk koo xam ne tamit dama dëkk ci quartier Somme quartier Somme bi ma dëkk nag samay jeune quartier jóg ne ñoom dañ may sargal mu nekk loo xam ne daf ma neex trop ça me fait droit au cœur ndaxte nag xale yoo xam ne man peut-être que su ma waxee rek ci samay jaar-jaar association sportive et culturelle bu som bu foofu lan ma njëkk a tàggate ci wàllu théâtre boobu maa ngi am l'âge de set à huit ans moo tax tey fa xale yooyu yóbbu manifestation ba mooy ca euh, angle kon jàkk defe naa ne loolu mooy au retour aux sources fa laa njëkk a yéeg ci planche ñu tàggat ma ci théâtre kon tey loolu dafa ma neex lool te dafa sedd sama xol may ñaanal yàlla xale yi nag seen manifestation bii ñu jël dende dan ma ciy sargal yal na ko sunu borom def euh, ñu am ci lu kawe seen njoxt mu nekk une total ci biir loolu nag boo gisee tey jii may may may théâtre nag euh, ba tey nit ñi gis ma ba di ma sargal tamit fu ma jàppale mooy sama borom kër ndax daf maa daf maa daf maa bàyyi ak sama xel ak sama xalaat ak sama dal duma bundu xotaal ci leen surtout sax daf may accompagner ci li may def di ma ci encourager. ma di ko ñaanal moom tamit yàlla lim ma jàppalee ni yal na toog ba njabootam gi di ko di ko di ko teral loolu laa koy ñaanal moom tamit euh, ndax sama famille muy sama yaay sama mag ñoom tam bañ ma accompagner ba pare jàppale ma euh, parce que man sama famille lu ma bëgg bëgg nañ ko man lu ma bëgg rek sama famille bëgg nañ ko muy sama grande sœur sama grand frère ay doomu sama grande sœur lu ma bëgg suba ba ngoon ñoom bëgg nañ ko te man damaa xaw a dama ne xaw a nekk ko fainéante koo xam ne maanaam maanaam dama leen di mën a tooñ daal lu bëgg ci ñoom rek dama koy dama koy def à 100% euh, mais ñoom dañ may top ci lépp lu luma lu neex sama borom kër jàppale ma kon nak ma wax tamit di woo famem di woo famem ñi nga xam ne mooy sama belle famille di leen wax ne leen euh, ñoom ñëpp tamit invité naa leen ci jour sargal ndey kumba bi ah, ma ciy woo nag Thiès gépp nag di ci woo Sénégal gépp di ci woo sama fans yépp nag may woo tamit l'école polytechnique de Thiès parce que nag vraiment foofu tamit dama faa ne may woo jigéenu polytechnique di woo les étudiants de l'école polytechnique les anciens élèves de l'école polytechnique de Thiès may woo tamit les pères mooy les professeurs de l'école polytechnique plus particulièrement di woo directeur euh, Elage Bamba Diaw may woo nag sama troupe Soleil Levant ndax na Olof Njaay nee na bu lëg lekkee alum na ko gërëme coy tey nag ba ma jàngee théâtre ci école ci somme, association sportive et somme, ma jàng ko fa yàlla def ma demaat nag def théâtre ci Escale mooy fi ma doon jàngee mooy sixième ba troisième foofu ma tamit may lancer appel tous les anciens du CM Escale dañ ko doon waxtaan boobu CG Escale anciens yëpp ak anciennes yëpp maa ngi leen di woo di woo abuli bu dëkk taaxi kaw defe naa ne su ma ko tuddee tudd naa ñëpp di woo umi baax di woo si Sissoko maa ngi woo tamit sama directeur artistique muy Massar Talla Diop mu nekk léegi professeur à l'université de Thiès di woo waa université de Thiès yëpp di woo sama troupe nag soleil levant li ma la wax rek sànq la lekki alam na ko ma cooy bu ma jaaree sama jaar-jaar yi foofu soleil levant falaa nag sama confirmation di soleil levant laa ko def may woo góoru soleil levant yëpp nag di woo euh, sunu metteur en scène muy Cheikh Talibou Yeye Ndiaye Jojo di woo suñu directeur muy maam Cheikh Gueye may woo tamit encore Abdou Aziz Niane la scénariste di jigéen ñëpp nag ñoom Binta Samb ñoom euh, muy ko di woo ñoom Abidjan ñoom Sumbulu Bàccili lii diwoo ñëpp bu ma leen tuddee ñoom faatu Gueye di góor ñëpp ñëpp ñëpp sans exception di woo nag tamit suñu ñi nekk Dakar muy maan euh, Mansour mbay ma jaaga maa ngi koy woo di woo Babacar bu Grand Théâtre ñëpp maa ngi leen di woo euh, bu ma jógee ci loolu may woo sama famille ndax li tax ma ne man may woo sama famille di wax sama grande seur

CNTS confédération nationale eh, bu bu Sentes, CNTS bu Modou Giro woo naa ko parce que nag si syndicat komite laa eh, muy comité femme bu Thiès bu union régionale bu Thiès wona len, wo wa waa wa wa waa nasional, national ñëpp woo naa leen dama ne leen mbir mi woo artiste comédien yi nekk Thiès artiste comédien yi nekk Dakar yi nekk banlieue ñoom Adama Diarra di wo ñoom Pafay ñëpp woo naa leen maa ngi woo ñoom eh, Daaro di ñoom day siin ñi nekk Thiès ñoom Serigne Gagne ak euh, ñoom Cheikh Seck ñoom ñëpp woo naa leen ñoom ñun ñoo naa leen parce que manifestation bi nee naa sargal bi ñu may sargal du man la ñuy sargal euh, laar la ñuy sargal ndax lii som def dafa nekk loo xam ne lu am importance la mbir mi nag dama bëgg na ñëpp teew wuyu les jeunes de Somme wuy jàppale si les jeunes de Somme di woo nag lépp luy force politique bu Sénégal sans exception ñëpp laay woo woo woo naa la mouvance présidentielle woo naa ñu nekk ci opposition bi woo naa ñëpp parce que ñun artiste comédienne lañu euh, ñëpp ñu bëgg waaw. di nag tamit ñi nga xam ne ñooy suñu réalisateur ñi nga xam ne mooy euh, Ndiaga Ndour di woo Ngone Ndour sama xarit di woo Moustapha Diop ñoom ñëpp woo naa leen ci manifestation bi Omar Seye yow xam nga ne manifestation bi lii lépp luy affaire technique. yow Omar Seye xam nga ne yow maak yow ñoo bokk som ndax foofu ma juddoo fa nga juddoo tey see nu kon yow defe naa ne duma la sax woo dama naan la yëf yi sa yëf la kon tey dañ ñëw soutenir les xale yi les jeunes de som jàppale leen waaw ndax nag mm, booy wàlli waan fekk sa kër dafa tëggul te lii nekk na loo xam ne nag xale yi som man mënuma leen fay dama leen di bàyyi yàlla di bàyyi yàlla tam seeni seeni waajur ndax lu xale def rek ci waajur wala lu xale def rek ci waaju plus particulièrement may wax sama mag Babel Thiam maa ngi koy sant di sant soxnaam muy Ndeye Ndumbe Thiam ndax lii lépp nag ak Abigay ñoom ah ndax lii lépp ak ñoom mère Kumba Diop ñoom ñoom mère Kumba euh, Kumba Gay ñoom ñëpp maa ngi leen sant ñoom Fanta Camara ñoom ñëpp parce que xale yi bu nekkee koñ bi ba jël initiative bi dañoo waxtaan ak mag ñi mag ñee leen dey mag ñee leen wax ne leen nag lii kon nag man ñoom ñëpp woo naa leen di woo nag encore. xalé yi nga xamné liñ naan rof yakul yeen suma nekké di théâtre ba nit ñi dima ma gis may gek c'est grâce à ñom may woy astil ndjay ak équipe ñom ya yaa faatu ngi leen di wo Ami Collé ma ngi di wo nak nday roxé bacc li euh responsable diko wo madame massali té xamné bis bi tay di wo madame bacc li sama yaay ndax wax dëgg yalla ba bacc li buur ngalam mom daf ma yaatal ci biir kërëm gi def ma comme dombu mu di wo nak sama xarit xol Daado li mu ngi France di woo Kumba Bathily à Dakar di woo ñëpp nag macha allah kontaan nag ci ñëpp woo waa ndax jaxaw fa la troupe ba lañ fa ëpp fa la nekk jaxaaw woo naa ñëpp ma kenn na ma ñëpp ñëw wuy si ñu def fête bi àndandoo ko mu nekk benn. waaw su ma wootee Dakar tamit damaa cee war a boole Fodé ndax Fodé damaa bëgg ne man yaay sama yaay booy Fodé mbir mi sa mbir la yaag Adama Jara mbir mi seen mbir la yéen ñi yene sama dom. ndax yéen ne man Dakar ba Dakar daj senegal ba senegal daj may seen yaay kon nak tay ji buñ ma inviter di ma sargal yéen mbir mi seen mbir la sooy levant nak yefi ah yéen def naan lu ci wara a mbay doose sama dom. Ah, yow yefi sa yefa de yefi sa yef la yaay sama caat yaay sama caat yefi sa yef la ak sa papa euh fal ñukoy wax vie ba ñom gor gi ñing ñom bir misen ah mbir mi seen mbir la de mbir mi seen mbir la waaw ah Asel Ndiaye na na na ma sóor yi kawe euh, may woo nag xale bu baax ci man ndey xoj a jum ndax bu ma nit ñi gisee ci télé bi may rafet di sol lu rafet c'est grâce à ndey xoj a jum jum ndey xujje maa ngi lay war madame Ndiouk yow loo baax doyul Ndiouk nag lépp nag sa yaay ndey mbaw laa koy gërëmee ndax moom ma booleeg yow yow boo jógee voyage defe nga lu rafet mën nga koy njëkka daggal ma sol te nag boo demee ba sëfi saw mbutiku sëñ Babacar di ca da la gis ngay def lu bax kon yeen wa marché central ndey xujja neena la wona ñep wo xadim sama tailleur wo yamar sama tailleur di wotam tam El sama tailleur ñi ñep nak wona len ci manifestation muy sargal bi macha allah. muy le 4 avril euh, à 16h ci quartier som ci wetu mosquée euh, Manam juma jàkkay njaxate waaw noonu lañ koy waxee juma njaxate moom foo naa leen ko fa na ko ñëpp teewee na ñëpp ñëw te bu keroogee bu nu ñëwee ah macha allah dinañ xam ne xale yi liñ def coma mënu ko liñ def euh, ko xamul dara man ko mbir mbiru mag lañ def yëfi mag lañ def kon tamit maa ngi ñaanal yépp que yàlla nañ ko teewee jàmm ak salaam te mu réussite nekk une réussite totale merci beaucoup. salaamaaleykum wa Sénégal defe naa ni euh, bu ngeen ma laajee tey pour ma wax ci Ndeye Kumba Coulibaly Madrepeace euh, je crois que ni dinaa am lu bari luma ci mën wax dama koy jëm résumer rek ndax defa naa nit ko xam yang ko xam ay 99 98 jëm 2017 xam nga ko bu baax d'autant plus que ñu bokk ben troupe ma nekk metteur en scène am en plus de tout ça mu nekk sama mag magam di Ndeye Fall Coulibaly mi nga xam ni moo créé Soleil Levant di sama yaay kon defe naa ne man xam naa bu baax a baax a baax kan mooy Ndeye Kumba Madre Piss muy ku baax di ku am talent di ku bëgg li muy def tey jii xëy na dafa ràññeeku bu baax ci wiiri wiiri waaye yàgg na wone ay preuve ci aar bi yàgg na wone ne lii daf ko bëgg ndax liggéey boo koy def di ko def par amour je crois que lu ne mën na la cee fekk tey te moom làkkat la xamul caaxaan boo ko joxee rôle rôle boobu dina ko ndékkee di ko añee di ko fanaanoo di ko reeree ba bu ñëwee dafa may jox satisfaction à cent pour cent benn yoon laa koy jox tex benn yoon duma ko ko répétel da koy jaale la yoon ba ci leneen sax man donc je crois que ne tey Nous ko delloo njukkal war na Sénégal waxuma Thiès mais war Sénégal ndax euh, ki nga xam lu ko yëkkati mooy bégal doomu aadama ku nga xam lu ko yëkkati mooy aar bi di def métier bu noble ba àgg fii mu je crois que aussi euh, am na mérité na ko chance mérite la ci muy mère de famille Euh, di nuyu de passage jëkkëram tonton Ngañ mi nga xam ne moo ko wóolu wóolu ñu tamit jël ko teg ko si suñu ay loxo ñu yàgg ak moom heure bu ne mën nañ ko woo dem tonton sax moo ko yee na ko jógal balaa ngaa tardé donc loolu tamit ñu ko ci delloo njukkal di ko ci remercier di wax daal waa Sénégal que ni Madre Pis seen Madre Pis la nitu kese la nag nitu kese nitu kese la. dafa fekk nak ne rôle boko ko joxee doomu adama daf ci dem à 100% day dem ba dugg ci biir rôle bobu mais amul ben problème aduna ku bax la ku bax la donc elle a vraiment du mérite euh, man nak mang koy féliciter personnellement à mon nom au nom de toute la troupe Soleil Levant vraiment mang koy féliciter ci liguey bu muy liguey diko gëna encourager diko gëna a ñaax diko xamal que ni dal bu waaxu su jeexul rek yoon bi du jeex defagul dara wonegul dara wa Sénégal ndax bu dul wiri sax amna yenen yu nga xamni dafa extraordinaire incha allahu rabbi den ci dugg te bu boobaa dina leen facette ci mom donc euh, je crois que en résumé mënuma fi nek di wax lepp li la mën wax euh, diko féliciter encore une fois peace